ñu dem ci Ousmane Sonko mi nga xam ne Assane gis nañ ab sécurité bu nga xam ne mooy euh, sécurité sécurité bu primature daal ñu nga ci alentour euh, fi nga xam ne mooy assemblée baak biir euh, assemblée di xool léegi nag daal moo xaw a indiwaatu débat ci penc mi kon daf mel ni Ousmane Sonko dafa pare pour def ci DPG bi. Hmm. le 13 lañ doon wax te jàpp nañu le 12 dañ koy tas. Hmm. te ña fa gis sécurité bi foofu lu xew. Hmm. waaw am na solo yëpp it naa doon politique. ndax umpale woon démb maa la doon wax naan la lan moo tax président Bassirou Diomaye ni leen la onze tey la douze ñu nar koo tas te neen leen la onze waaw nga ni ñaari wax la waaw la treize ak waaw la treize ak la la ñoom nii ni neen la onze lan moo tax mu ni leen la onze xuma la douze daal xam nga nu ma ko waxeetu woon noonu waaw la douze hmm. la ñëwoon bind na président assemblée nationale yow nga ne lu tax mu leen mu koy bind bind ba pare pour tas ba pare daal ni le treize le treize Sonko day ñëw waaw loolu nga wax man leen ñaari wax yooyu naka la ko mën a waxee mhm. man a pee am na ko ma koy leeral mu ni ma moom waxul ñaari wax maanaam président Amadou Mame Diop moo ko bind leetar ñu mhm. ko bindee leetar ni ko kii kat dañoo bëgg mu ñëw mhm. nangam lañ jàpp mun leen mënul président Diomaye ni mënul leen a jàpp loolu te matut lii le treize rek lay mat. Mhm. lay wax le treize lay mat. Mhm. léegi kon le treize exemple bu ko président bi euh, bu ko kiyee le douze taxul mun leen le treize lay am leen leen le treize lay mat. Mhm. mais le douze bu ko neexee mën na ko tas ndax waxut ñaari wax. après si lañ ma wax ni ma li mu wax. mais boo gisee loolu am tey jii euh, premier ministre bi garde corps yi mën nañoo ñu visiter ñoom bañ ne ah kii na pare na. ñu bu ko président Diomaye taseet dañ na ah premier ministre bi de pare woon na pour ba xool nañ garde corps yeeg ñëpp xool nañ ba pare waaye ay la yeween far ñu tas ko le 12 kon mënut a dem mu defe ko feneen. Mhm. wala it ñu ubbil ko ensemble bi bu dee tas nañ ko ñii dutuñu fa am axe mu daal di ñëw toog wax nit ñu ñëw seetaan si ko man na mën nañ ko faa defee mais du doon si teewaayu député yi wala député yi boobaa bu ñu ñëwee dutuñu doon député mais ay supporters la ñuy doon wala ay. supporters waaw. bu ñu tasee bi kay Assane kon loolu nekkatul DPG. bu ñu ko tasee. waaw. Ah. non loolu mën a nekk Assane. ñu tas ko ba pare mu def ko. buñ ko tasee kenn nekkatu fa. moom mu dugg def maanaam jëmmi saal bi bu ko neexee mu ñëw def si ko fa. <laughs> nit ñi seetaan si. non non Assane loolu mënut a waaw kilifa yëpp nga xam ne dañuy seetaan. non Assane bul loolu mënul nekk yow tamit. loolu lañ fas yéene def. ah nañu xam rek. <laughs> wax di as di di di. dëgër le treize mën na ko faa defee waaye daal na leer ni. yow tas assemblée ba pare bàyyi ko fa moom dund léegi député yi ñëw seetaan ah seetaan si kay. kenn du jël kàddu. ah bu ñuy jëlee kàddu dañu doon nit yi di bëgg. joxe <coughs> hélas. d' accord président assemblée nationale moom tamit lettre bi ñu ko bindoon maa ngi ciy jot xabaar léegi nee na moom amu ci daal lu muy dogal ak lu muy def waaye nee na président le treize bi nga waxoon nag. Mhm. moom itam sampaan na bu laaj. kan président assemblée nationale. moom ngay na xaar rek soreetu <laughs> na bàyyi déposé yeeg seeg yi na toog jàpp boppam. Mm. maa na toog jàpp bis moom booy bañ mu ñëw rek bu ñu ko jàppal bu dat kon jàpp nga la treize du xëy. le treize man naa xëy seetaan si. waaye asul li nga wax mënta nekk waaye. waaw baax na bañ àgg ca. <laughs> le treize si. bu ko neexee fekk am na jot gi. ok Ndiogou. diggante le douze ñaari date la yooy dégg nañ ko fa. moo tax maa ngi wax léegi nii euh, premier euh, président assemblée nationale moom nee na lu taxoon kon d' accord d' accord moom amu ci lu mu ciy wax ak lu mu ciy def. mais le le treize bi nga xam ne jàppoon na ko mais sécurité primature moom gis nañ leen foofale kon ñu jàpp ni DPG bi day am. waaw li ci mën a am daal maanaam damay ñaan ëllëg ak jàmm di la douze président tas assemblée bi. mooy suba waaw man moom loolu daal moom laay ñaan waaw pour président defal ñu loolu. tas ko tas assemblée bi parce que. ñaanuma daal wax dëgg fa yàlla premier ministre dem jàkkaarloog façon député yi loolu daal bu amee dana ma naqari lool. yow waaw lu neexuma waaw bëgguma premier ministre jàkkaarloog ñii parce que ñii bëgguñu rek lu dul ku ci ne naan wax ju ñaaw ji laa ko mujjee wax. jox say sit maanaam li ñuy wax waxaluñu ko réew mi ñëwuñu toog pour réew mi. ay nit nag bu fekkente ni bii dañu daje pour xas benn nit ah, hmm. xas gor pour mu taxaw ñu taxaw foo xam dañuy am sañ-sañu di ko wax lu leen neex. Hmm. comprendre nga. Hmm. c'est parce que dañuy am mbubbum député am mbalaanum kiiraay. loolu daal wax dëgg fa yàlla neexuma man. man moom wax dëgg fa yàlla que ni yi dem euh, xool ak yëpp daal. li gën pour man. Mhm. mooy ñu tas assemblée nationale mu bañ a am. waaw parce que bu amee di nga fa dégg lu la naqari. ok parce que am na ñoo xam ne pare wuñu lu dul saaga. Mhm. amuñu benn idée bu dul saaga wax wax ju ñaaw te loolu rek lañ bëgg a wax. loolu nag bu leen bu leen ko président may. nga xam ne histoire da leen koy may. non non waaw mooy bu Ousmane ñëwee assemblée. ba mu ñëwee la ma ko waxoon a ngi nii waaw léegi nañ leen bàyyi ñu wër après naan lii laa naroon. Mm-hmm. la ma naroon la ma naroon waaye lañ naroon moom bu ñu fexe ba loolu am nañ leen bàyyi ci la ma naroon rek. Mm-hmm. waaw ay la ma naroon bés bu keroog. <laughs> moo xam mais dégg nga mais dégg nga li Assane wax. waaw hmm? moom <laughs> loolu moom seen mbir Assane ci caa. yow kay seetaanal rek. loolu moom membre gouvernement ba da nga hmm. bi. <laughs> da nga gis ñu toog mais Assane yow loolu loolu loolu. Ah, léegi loolu bu fekkee mais nag dëgg ma Assane. yaakaaruma ni nag même bu fekkee ne tey tas nañu assemblée nationale même premier ministre Ousmane Sonko bu doon ne moom dafa préféré pour wax ak askan wi gowuma ni mu dem ba si assemblée nationale nag. Hmm. Euh, di ko loolu kenn ñëpp génn ñu fa la ñu ah, loolu moom loolu yënul maanaam. Assane loolu yënul loolu moom loolu wax ku daal sareen leer yow fi ñu doon léegi yow seetaanal. waaw loolu moom du xanaa man xanaa xanaa soppi soppi ah. bu ñu xasee coppite am si diggante bi. léegi bu ñu xasee tas assemblée ñu ne léegi tas nañ. Ah. ah léegi te assemblée tuddoo lu muy tudd. nga ni lu muy tudd dañ tas maam tas nañ groupe ba fa nekkoon mais jëmmi bâtiment bi ensemble lay tudd ba léegi. déedéet tuddatu ko. ah kay jëmmi bâtiment bi. ba ah, léegi ensemble le fait que mu doon assemblée nag. Ah. moo tax nag ay député ñoo fa war a ne. Assane député yi. mais dama ne yi ñoo tax DPG yi nekkuñu fa. Hmm. donc loolu moom góob ma ni dinañ ko fa. waaw ah, léegi yow da ngay indi da génn foo xam ne ah, vraiment moom. contre dafay dëgër nag. bu fi député yi nekkut daa ma ne saal bi laa la wax. saal ah, ma ne dimbali ma ci saal bi. saal yi ñoo tax moom. waaye xam naa rek saal boobu Ousmane Sonko mën na ko faa defee si ak gouvernement am yëpp ñëw toog nit ñi yéeg kaw seetaan mu defee ko fa. yow li ngay wax nii daal foo ko baax na. <laughs> xanaa soppite am ñu defe ko fenn grand théâtre wala feneen wala ñu wala ñu laaj commentaire yi commentaire yi xam nañ li may wax ne naa ay waxi dox ak waxi naa waaye ñoom comprendre après la ñuy <laughs> après <laughs> xanaa soppite am suñu yóbbu ko grand théâtre wala ñu yóbbu ko place de l'Obélisque wala feneen hmm. waaye daal hmm, xam nga yow fi ñu doon noonu loolu loolu de li Assane di xalaatu kannasoom bi waaw loolu de opposition bi buñ mënoon a ba loolu am danañ ko def hmm. am na kuy laaj fii loo bokk kader de. Hmm? am na fi kuy laaj loo bokk kader de. te <laughs> Assane nag day jéem a wéral mbiram mi. ab animateur de. Ah. ab animateur de. ah waaw yow de yaa tere ka ma laajoon loo bokk ak bugaan muy xataraay. Hmm. waaw. waaye bàyyi li yooyu nag Assane loolu mënta nekk dégg nga. masari bal di jàpp li nekk da nga xaar ba mu jàll. nit ku ñu xam loolu dafa mënul nekk. loolu mënul nekk dégg nga bàyyi bàyyi loolu. loolu moom mënul nekk kon du ko def du def du def déclaration. loolu def déclaration le xaw ma lu muy def de waaye daal en tout cas. Hmm. loolu daal li nga wax nii. Hmm. mënta ne. c'est bon. yow mi ngi noonu euh, ginnaaw bi ñu sant gars yi ñu ngi def le douze le douze le douze le douze am na ñuy def ay kaas yu sànq kaas yi nga naa ko fee gis de. kaas lu ko fi indi alaaji. ah sab ah de man de bëgg naan di. wóor na yàlla. kaas yi kaas yi ëllëg dana ñëw. asan dafa delluwaat <laughs> yi bu leen ko fi indi kaas yi gëj na torop torop torop seen kaas seen caaxaan yi.